di nuyu bu baax kilifay jataay bi bu ñu jiitalee Cheikh ñas mi nga xam ne moom la fi si di bàyyi te mu mate place bi nag di nuyu bu baax Guy Marius Sagna mi ci wetam di nuyu bu baax El Malick ak kilifa yi nga xam ne alaaji saa mi nga xam ne moom léegi saa ma woon at yële bokkut ak saa mii toog waaw fi mu ne saa mu kenn xamut toog nii maa ngi koy nuyu mbokk yi li tubaab naan xawma il est heure mu nu ngeen koy waxee yéen ñi jàng waaw ñun taalibe nag ñun <laughs> dafa am nuñ koy nëbbe tuuti mbokk yi situation bi fi mu toll garaaw na Cheikh Baara bi nga xam ne moom lay yoon teg loxo depuis boobu ba tey waxuma la ak njabootu boppam waxuma la ñi ñu naan kilifa diine yi waaye njaboot gu sew gi mu bàyyi rek fi mu ne mën naa ne loof nañ te na nañ te àdduna ñépp ñu ngi xëppi seeni bët di xool du ma ne kenn yëgul li xew du ma ne it ñépp a yëg waaye damaa jàpp ne mbiri Cheikh Baara fi ne umpeetul xëy na kay yoon moo xool la ko soob ak nam ca bëgg ndoxe mu doxalee ko waaye Cheikh Bara bu kenn kenn ñaanalu ko waaye est-ce que kii maye dégg na ne ñu koy ñaan lii mooy wax bi Sénégal nag dafa toll foo xam ne tollatul mbir yoon ak mbiri état nit ñi dañuy lijjanti seeni intérêt personnel ci nit ñi ñuy jàpp te loolu du yoon yow nit daf lay tooñoon daaw yoon di dox nga naan dana fi yegsi ba mu yegsi ngay lijjanteeg moom lu mu mas a wax ci yow wala lu mu gaaral ci yow mais sëñ bi nañu am yërmande ñun ñoo bokk réew mi te àdduna dara saxul bu ñu toogaatee ñaar fukki at kër-kër yéeg lépp dañ koy fàtte ñu yoroon archive toog ñu naan sa waajur lii la fi defoon ëpp na nag ñu naan moo tëjoon kii wala kii ci ay loxoom la noppaloo te olof Njaay day wax ne boo jàppee ne xaw ma ni sama yaay ñëwee ci kër gi yaa ngi nax sa bopp ndax noppam ak borom fii lu fi waaye def dinañ ko xam kenn tëkkuwul kenn kenn menacé wul kenn waaye fi mu ne àdduna bi lii fi ne surtout senegaal ñii dañuy wax droit ñii di wax dëgg ñii di wax ay kàcc te ñuy wax droit ñi ñuy waxal ñoom dégluwuñu droit ñuy wax dëgg ay droit la ñu wax xam nga luy loolu yow kilifa gi bu ñëwee bañ ñaan la yow nga bëgg a ñëw taxaw naan droit benn droit rek a fi am mooy alxuraan te droit boobu sax ñun jullit di ñu ngi koy violé waxuma laa ak lu ñu bindaloon teg ñu naan ñu ay article lii mënta ñàkk lu luñ mënta maye ci àdduna amul danga naan kay mënuma laa may lii ndax lii arrangé wu ma wax ju dul dañ mooy kan mooy waxi suñ borom te ñun ñi sax ñu ngi koy dindi ñun jullit yi te ñu ngi ci lu ñu soob te suñ borom di ñu jëggal ñuy faat ay waxtoon te duñu rey liggéey yu luñ ko dara mu ñuy wërsëgalal te bu toppante woon ak ñun senn saa jàpp te ñun ñii nit yi àdduna yi kun fi tooñ virgule ngay jéem a téye loolu ci sa xol bay mettital nit ñi di tëj ci kaso bi senegal fi ne ñii ngay dajal ci mbedd ñi policier bu civilu ak étranger bu fi dëkkul pour ma dox ba dajee nit ku ma xam sax tout un problème ñépp a ngi ci kaso bi l'heure est grave yéen a ngi ree waaye képp ku naan bokkuma ci wallaahi lii di màtte dina la matt ba ci goog dara kàmm nañu amaat yërmande dara mënta booloo lu dul dëkk waaye dëgg jooju kenn mënu koo dajeek moom ba gis ko na la liyee dëgg tëddal tey nga ne fii ak ñaari at wala fii ak juróomi weer de damay nekk ci jàmm wala fii ak fukki at damay nekk ci jàmm waaye après loolu lan mooy nekk ci ginnaaw leneen mooy dëkk senegal fan la jëm te kilifa yëpp a ngi toog di xool ñu naan kenn dégg ko kilifa nangam ndaw ñi ndaw ñëpp a yaru te kenn ku ci nekk àdduna am na foo jokk waaye ku la mënta génn ci kaso bii mën na laa génn ci bàmmeel yaa ulil albaab musuma gis nit koo xam ne ñëw naa ci moom man de Serigne Saliou bi may am juróom-benn at la ma yar te politiciens yii ngeen fii gis ñëpp fekk nañ ma man ci keppaaram te masaa na ñëw baat bii la leen daan wax salaaw de seen yërmande ci jàmm ñi lu ngeen ko man ci yokku ni ngeen ko yokk tey laaye biirante ak ñoom waaye léegi jamono jii boo waxee ba jël kilifa diina teg nga indi maam Abdou ñu ne xa kay am na ñu fi nekk sëriñ Serigne Mountakha mii daaw ba ren ngi wax waaye est-ce que président Macky Sall am na ku koy jottalil wala mi ngi dégg lii ñuy wax. ku nekk ragal toog kilifa na mokk na man duma wax sama yónneeku ci dañoo laalul sa njaboot bu ñu fi jàppoon diw nàngam léegi tey ñu woote ñëpp toog daal ne kii kat nàngam te ñii ñuy xeb xebal la ko doy waar ay kilifa lañ Cheikh Bara Ndiaye àgg na ci foo xam ne ma wax leen ko tey ngeen dégg. man bu ma toogoon ñu ne ma faatu na wallaahi laxasim du ma ko wenn barke alxuraan man duma ma fenn te rusul na nag ku toll ni seex Bara njaay ñu ne yoon da koo téye te genn kilifa mënu koo ñaanal intervention mu génn Cheikh Bara ñu def ay mbir ak lijjanti ba mu génnal boppam moo ëllëg Cheikh baara bu demee ci kilifaam moo lu leen di wax ëpp naa xalaat sëñ Abdou Samad mu jóge ba Touba ñëw bëgg koo gis mënu koo gis lan moo dal Cheikh Bara ba Cheikh Abdou Samad mënu koo gis ma tëjee fii ci président Ousmane Sonko mi nga xam ne tey kasoom xam nga mooy lan mooy yee xale yi nga xam ne dañoo nekk ci réew mi ba ñépp ubbeeku ci àdduna moo tax jaratul politique jaratul campagne senegal fii mu toll wallaahi mën nañoo organiser ay élection yoo xam ne bi benn politique seen wàcc ci mbedd mi ndax nit ñi xam nañ ki ñuy àndal ñu bëgg a tëj suñu xel bëgg ñoo nelawal naan ñii ay lii lañ ñee ay lee lañ pourquoi ñun ñi nga xam ne dañoo jàngi woon alxuraan ñëw dugg ci réew mi yéen mënoo leen ñoo reconnaître ñun lan lañ leen di déranger te ñoo bokk réew mi te ñun dañuy jàng ay kaamil alxuraan di génn ay sarax di ko ñaanal réew mi te am na tuuti as mbir loo xam ne ñu ngi koy xam te yéen ñi ci kanam xamoo leen ko ndax suñ borom nag am na tuuti ñu muy déglanteel ci ay gaayam kenn du forcé nit na ko kaay leen reconnaître ñu duñ ko def waaye ñoo bokk réew mi da ngeen koy teg ñu waxtaane ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh